mais ëllëg mën a dal ci ku ne et je pense que li gën ci politique Sénégal mooy que ñu modifier le code électoral maintenant la question de l' amnistie appréciation président la mais mais mais Abba man par exemple. Mm. aussi man man man dama lay laaj benn question di nga ci expliquer li nga wax li nga bëgg a wax yëpp. Hmm. mais tout sauf nga tontu ma. c' est à dire dama ne la. privilège yi ngeen di xëccoo du jotee ci voté ko ci amnistie bu jotee ngeen dem vote ko xam nga loolu kenn xalaatul par exemple euh, ñu ne dañuy voté amnistie abaani non du du du ko voté pour pour euh, pour Khalifa wala pour Karim mhm. keneen euh, Yewwi Askan Wi la même chose mais bu ñu demee ci budget bi ak nu mu mën a demee mais loolu mais je pense que li gën a jaadu mooy ngeen ngeen ngeen ngeen voté ko aussi. non non non Pape il faut comparer ce qui est comparable. la question du budget n'a rien à voir. Ah, tey le le le gouvernement nee na tey dafay indi budget gis nga tey même budget bi Pape su ñu amoon beaucoup plus de temps daañu dugal ay amendements yu gën a bëri maanaam tey même sunu sunu pouvoir parlementaire lu ñu jox sax demuñu au bout. mooy tey nga mën toog budget bi nga saytu ko programme par programme nga budget bi c'est des programmes mhm. nga ne lii d'accord ma dépense bi def naa amendement pour ngeen jëlee xaalis fii defee ko nii modifier les dépenses on n'a pas eu le temps matériel de le faire mhm. budget dialogue la entre yow da nga ne nii nga bëgg a liggéeyee comme comme bii nga si def mën la lii d'accord naa ci lii dokkalu ma ci amnistie on est dans autre chose mhm. amnistie déjà ça part d'une de la république tey amnistie man mënu ma ci wax yow mënoo ci wax xam lu tax parce que xamoon la si président dugal tey président bu ñëwee ne damay con damay con damay damay amnistier tous les crimes économiques de 2012 à 2022 mais loolu kenn mënu ci d' parce que loolu ce serait une complicité manifeste mais tey amnistie ba ma ci wax. mais di nga ko voté booba. non pourquoi ma koy voté. ah pourquoi ma koy voté parce que condamner tous les crimes économiques je pense que aba ah comprendre ma li ngay expliquer dama ne. mais mais tey. non non li ma la laaj. loi d' amnistie yow li nga ma bëgg Pape. non fee hmm? wax. waaw ci. ci ci ci ci ci concerné yi. waaw ñu ñëw ci fee yi. parce que mhm. am na si ku ne xam na ni fee yi la la concerné mais day yóbbaale. Mhm. ñi nga xam ne ñooy concerné yi. loolu leer na. Mhm. alors da nga ni ma dama ni la bu ñu tegee fee mu wóor la ni fee yi crime économique ak leneen mu ngi ci. mais dina yóbbaale Khalifa Sall yóbbaale Karim Wade nga ni doo ko voté booba. mais est-ce que est-ce que. li ma la laaj de leer na moom xanaa. leer na naññ. voilà ba baab leer na naññ. man tey politique su ma yéenee su ma yéenee mooy jàppale Khalifa Sall mu nekk président de la République Sénégal. waaw mais Khalifa Sall ci li mu waxtaan ak moom moom daf ñu ne il n' est pas pour l' parce que jàpp na ne actuellement li jaadu mooy la modification du code électoral. Karim Wade nee na moom li jaadu. moom li mu bëgg moo ñu révisé son procès. ku nekk am na fi nga taxaw tey foofu mënoo ko mënoo ko weesu tant que xamoo la la président di indi. président li muy indi nag bu ko indi président bu ne man euh, andi naa une amnistie circonscrit ko aux deux la on pourra se prononcer mais tant que président indiwul lu muy teg mënuñu am un avis prononcé dessus ah, mais quant à tey président ñoo indi ne benn loi la bu xamante ne dafay amnistier tous les crimes économiques de 2012 à nos jours loolu man mënu ma si ànd c'est-à-dire même buy concerner Khalifa Sall doo ci ànd. c'est pas une question de Khalifa Sall. non mais dama non mais Abba c'est une question <laughs> même buy concerner Khalifa une question de tout le Sénégal. et tout le Sénégal waaw non loolu mu retrouver ses droits mhm. boobaa aussi yow doo ci ànd ci loolu. doo ko voté mais mais mais dafa am ñoom te ne c'est des responsabilités devant Dieu et devant l'histoire d'accord naa ko. man tey tey la chance man li ma li ma a a tontu li ma yàlla defal ñu bu ñuy tànn téeméeri sénégalais ak fukk fukk ak juróom fukk ak benn. Mhm. yu war nekk député assemblée nationale yàlla boole ma ci mission parlementaire laa nekk et tey je en un bu sénégalais am na yu nga xamante ne devant Dieu et devant l'histoire man mënu ma ci ànd. parce que nag mu ñu nekk une jeune génération xam nga yaa ngi may wax léegi tey li nga wax ñii bu ñu ko déggee dañ ci kontaan c'est pas question ñu kontaan ou su ma la waxee potentiel sama réew man jàpp naa ne Sénégal bu ñu liggéeyee dëgg wàññi gouvernement bi. defaraat ay politiques publiques dans trois ans quatre ans ce pays peut radicalement changer loolu laa gëm mooy suma gëm-gëm donc liy yàq Sénégal man duma ma ci dox bu fekkee tey dafa def amnistie ne day amnistier des crimes économiques amul benn sénégalais sérieux wala jeune politique bu ci war a ànd. d' accord mais ba d' accord. loolu dégg naa ko euh, amul benn jeune bu ci war a ànd donc moom Aba mbay du ci ànd par exemple bu président ne dafay amnistie mm. Khalifa Sall yow doo ci lal ko ci euh, maanaam boole ci fee mu nekk euh, ni nga ko expliqué lu aju ci wàllu crime économique ak leneen ak leneen mm. yow doo ànd ci ñi nga xam ne ñoom ñoo koy voté non duma ànd parce que ça va ça va dina ñëw assemblée et y aura y man de bokkuma si ñi nga xamante ne dinañ d'accord ñu def une amnistie fii des crimes économiques de 2000 à 2012 parce que le président Macky Sall moom moo commencé ne moom mooy le plan de la transparence indi fi CREI indi fi yenn ak yenn donc comment président là tey gis nañ un signal bu xaw dangereux mooy la nomination du procureur Bassirou Gueye à l'OFNAC tey comment ce président là peut revenir dix ans après di voter une loi d'amnistie sur les crimes économiques qu'il y mandat mais un reniement de ce qu'il a fait lui donc yooyu moo jar a man loolu moo jar a bàyyi xel plutôt que de le cas xelsal un autre Abba su ma la déggee dafa dafa am crime économique yoo yoo teg sa loxo yoo jàpp ni lii kenn waru ko mën a euh, kenn waru ko mën a effacer wala kenn waru ko mën a amnistier non euh, man en tout cas le président de la république nee na moom y a plusieurs dossiers moom moo ci teg concam waaw on a envie ñu ko l'affaire des des des quatre-vingt-quatorze milliards de Mamoun Diallo on a envie ñu élucider ko am na yenn ak scandale yu fi am l'affaire Franck Timis tey Franck Timis ñu ngi koy dégg ci suuf Sénégal à à dans la zone de Raw ak ak dans la zone de Ndial donc c'est des choses te ne les Sénégalais ont envie de savoir comment ça s'est passé tey munoo def campagne nga ne candidat la su ma faloo je vais renégocier les te xamoo lan lañu négocié woon au départ donc c' est des questions qui on le veuille ou non à moyen long terme vont s'imposer à nous maintenant s'il s'avère que aussi dugg nañ ba ci biir xool nañ contrat yi que y a rien de grave mais temps yëpp la l'avenir du pays donc je pense que aujourd'hui tey Pape man li ma gëm mooy que on a intérêt à réduire les points de crispation dans ce pays là ce Sénégal là c'est le nôtre tey jàpp naa ne président point de crispation yi muy muy point de crispation yan lan la muy la question euh, procès procès procès procès euh, Ousmane Sonko qui est un peu l'amnistie mais loolu ñi ngi ci xam nga ni procès ñi ngi ci waaw confrontation am na tey jii rek déglu nañ capitaine Touré waaw d'accord lan nga bëggaat ñu def ko ci mais mais tey distance temps bi ñu jël nii pour ce procès là comme si dafa nekk loo xamante ne dañ koy pendre la tête de Ousmane Sonko tey Ousmane Sonko buy dem tourné ñu jël ay dizaines et des dizaines de de véhicules gendarmes ñu tomp ko pour man loolu nekk lu ma tey rafetul parce que président Macky Sall bi muy falu en 2012 bi mu dem tournéem kenn àndul kenn topp ko woon tey le cas l'amnistie de Karim Wade et de Khalifa pour moi il fait partie si li nga xamante ne day stabiliser dëkk bi joxe sénégalais ñu am possibilité offre. le cas de Pape Alé mm-hmm. du troisième mandat sont autant de choses yoo ne on a besoin d' apaiser les champs politiques parce que c'est pas facile le Mali est instable gis nañ situation dans les deux Guinées sécurité ak stabilité Sénégal ça nous incombe tous autant ñun on doit faire un le pouvoir doit faire un un pas vers cela. loolu laay taxaw ah. parce que boo ma waxee pas yi ngeen ci def bëgg naa ko xam. Mm. parce que man pas li may gis yéen par exemple opposition bi yëpp mooy pas wu pas wu raak mm. gis donc te pas yooyu aussi bu fekkee da ngeen ko teg ñoom ñu teg beneen pas rapport de force boobu la mën a indi. donc yan pas ngeen di teg yéen. opposition pour par exemple état bi bu tegee pas loolu mën a indi euh, décrispation ci espace politique bi. dama lay jox benn exemple keroog bi ñuy voté budget armée mais waa Benno Bokk Yaakaar ku jël parole xas ñu parce que ne ñu yéen pour la première fois ñu war waxtaan ak fii budget armée mais ñu ne leen ñun budget armée budget la comme budget yëpp donc tey bu ñuy waxtaanee budget armée c'est parce que sunu armée la et on s'intéresse à ce que l'armée sénégalaise de faire. mais biñ ñëwee ba heure moo ba ñoom ils pensaient que ñun comme on n'a pas voté les autres budgets duñu voté budget armé bi ñu amee bi ñu dikkatee suñu loxo yi dañu voté budget armé ñun ñëpp a jaaxle c'est-à-dire que ñun dañ leen wan ni que ñun fi ngeen nekk ak ñun fi ñu nekk bokkul ñun on est sur des positions de principe on n'est pas là pour dire que on va pas voter le budget parce que daf ñu neex parce que on vote non non ñun notre position elle est a non mënuma comprendre li ngay expliquer ba pare di di di di glorifié wu. ignorer budget santé parce que président. la république bëgg bëgg naan ay budget armé président CICAD président de la moo toog CICAD ne je vais mettre cinq cent milliards dans la santé à condition ko ngeen def réforme yi ngeen war def quand le ministre de la santé indi ma benn réforme man j'ai travaillé dans la santé tey fondamentalement problème santé mooy benn décret la bi organiser la trafication dans les hôpitaux hôpitaux yi nee nañ c'est c'est pas Sénégalais yi nee c'est trop cher. hôpitaux yi nee na c'est pas assez cher tey boo ma indilee budget non non Abba ah non euh, écoute loolu nga baal ma loolu démagogie la quoi. non loolu nit mënu ko comprendre. mënuñu par exemple. Mhm. mais armée bu bu dëgër. Mhm. day fekk au moins moom éducation. à la base. mais armée santé. ci ci ci ci ci ñi nga xam ne ñu ko ko. da nga ma wax budget de la santé. ngeen ma pourquoi ngeen voté non. on a voté non parce que dafa am ay réformes yu président de la République waxoon laajte ko financement de la santé gestion des pharmacie et pharmacopée bi ñu joxee budget gisuñu si benn réforme on a juste vu un budget ak ay investissement on a fait le choix de ne pas le voter tey budget hôpital budget armée boo ñëwee nga ci fekk santé hôpital principal ak hôpital militaire de Ouakam il dépend des forces armées tey PAM ngañ boo demee hôpital principal ñu ngi fay tabax benn clinique privée état bi mu ngi tabax benn clinique privée de 60 milliards alors que à côté l'État du Sénégal à principal pour les initiatives de gratuité mooy plan Sésame ainsi de suite les enfants de 0 à 5 ans doivent 3 milliards à principal yow yaa ngi amel bor hôpital bi bëgg fa tabax une clinique privée de 60 milliards mais nan ngay tarifé ñaari ñaari hôpital yi donc de manière systémique bu ñu jëlee benn budget ne on vote contre ce budget c'est pas parce que on rejette le budget mais c'est parce que on a des raisons objectives pour dire que ce budget là on le vote pas mais quand budget armée ñëw ñun on a on n'est pas une opposition irresponsable immature on est une opposition de, pro de proposition une opposition constructive et c'est ça qu'on a monté à l'Assemblée depuis le début du budget alors daf ci am benn incident bu ma gis tout à l'heure aussi bëgg na si am sa xalaat comme yow yaa ngi foon muy bi nga xamee ni Barthélémy Diaz mi ngi bëgg a dugal teg ojo bi mm. concernant le mandat du président de la République audio bi mosul mujjul egg mm-hmm. président bi accepté wu ko est-ce que en amont lu ngeen waxoon la ci audio yi dañ koy arrêté parce que bien avant dégg nañ fa ay audio ah. voilà donc dégg nañ ba Barthélémy ay audio dégg nañ Farba Ngom ay audio ak ñeneen mm-hmm. alors lan moo ci am ci ci ci wàll boobu parce que li ma dégg président bi wax ko mm-hmm. mooy que ni voilà nekkuloo fi woon mais lii waxoon nañ dootu fi amati waaw xam nga daf ñu commencé woon génne audio yi ku nekk mm-hmm. bu yéegee si kaw taal sa audio et je pense que loolu nekk na lu xamante ne kenn mënu ko maîtriser parce que bu ko nee ñu tey ñëw yéeg jël benn message jàmbur teg ko fa le président a utilisé le règlement intérieur waxtaan ak nit ñi ne ne règlement bi on va appliquer article boo day interdire sax boo ñëwee en session sa portable nekk en marche donc à partir portable n'est en marche waroo mën a teg ay audio. Ah, donc logique boobu la demee. à partir session ñu ne à kenn dootul tegati audio une boo moo tax Barthélémy bi mu yéeg mi c'est pas on avait décidé en plénière qu'à partir de audio yi kenn du fa après mu Barthélémy accepté loolu comprendre après am incident bi foofu la yem. incident foofu la d' accord xam naa ni dafa am ci leneen looy dellu rek muy l' affaire Massata Samba ak Mamadou Niang. Mm-hmm. ñu fàttali ni vraiment bëggoon nañu a yaatal li nga xam ni moom mooy débat bi ak waa Benno Bokk Yaakaar mais malheureusement peut-être ay contraintes moo tax euh, ñëwuñu euh, Aba ñu ñu ñu lay remercier encore une fois mais loolu dama bëgg nga dellu siwaat ci parce que c' est une information bu ak ki nga xam ni mooy Mamadou muy ñaari député yi nga xam ni dañ leen dañ leen a tudd ci mbiru euh, Ami Ndiaye ñibi mhm. suba 10 heures war nañu wuy ji division des investigations criminelles tey fii ñuy waxee ñi ngi kër ki nga xam ni moo ñooy Birame Souleye Diop mi may mi may ñëw fii division des investigations criminelles lañ jóge bi foofu laa jógee ñëw fii directement parce que bi ñuy jógee assemblée à un moment on a cru ñoom la leen bëgg bëggoon arrêté ñun ñu ne du ñu nangu ñu arrêté leen si hémicycle bi donc on a pris l' engagement à travers notre président groupe parlementaire de dire que demain 10 heures daañu présenté wu bi ñu génnee di ñibbi waa GIGN topp ñu ñu leen comme ni ñuy topp mais nañ dellu division des investigations criminelles taxaw ci buntu bi bu ñu leen bëggee arrêté ñu arrêté leen léegi bu fekkee gëm nañ leen wax ñu bàyyi ñu ba demee 10 au finish bàyyi nañu ba demee 10 heures donc incha allah suba Massatam ak Modou Niang daañu présenté wu au niveau de la division des investigations. voilà merci beaucoup jërëjëf Abba. ma lay masawuwaat encore <laughs> une fois parce que ku ne xam ne coono yi nga xam daj ngeen ko assemblée nationale malgré tout nga nga nga ñëw bokk ak ñun euh, waxtaan bi nga xam ni seq nañu ko dañu la ciy remercier bu baax di la wax bu fekkee am nga loo ci loo ci loo ciy wax quoi. ci waaw Pape di wax rek di. di wax sénégalais et je pense bu ma koy wax dama koy wax ci turu sama collègue yëpp député yëpp man jàpp naa ni. on a on a une très bonne législature. Mhm. Euh, am na yu fi xew nag yoonte ne kenn rafetlu ko kenn kenn bëggu ko woon mais ay accident la te dafay dafay dafay arrivé te dafay am l'erreur est humaine donc y a eu des erreurs mais je pense que pour dire aux Sénégalais que même bu dul yeewee askan bi ils ont de quoi être fiers de la législature parce que ça a été une législature de débat. d'échange et les ministres aussi ont joué joué le jeu il y a eu des séances difficiles avec certains ministres mais il y a d'autres ministres aussi qui ont eu pris du plaisir à débattre avec les parlementaires et nekk na lu am solo je pense que c'est une nouvelle page qui s'ouvre tey ñun jàng nañ erreur yëpp c'était notre premier marathon budgétaire c'est notre première expérience parlementaire nit ki nag des fois lu la bett wala loo xamul mu mën la mais avec l'année avec l'expérience les gens seront beaucoup plus aguerris et je pense que la cette législature là ne faire que s'améliorer au fur à mesure parce que législature bu spéciale et le règlement intérieur n'est pas encore adapté à cette législature là je pense que ñun ñëpp on doit faire l'effort de changer ce règlement intérieur là et d'améliorer cette législature là pour euh, la bu baax di gërëm itam Chérif Dia suma suma confrère boobu ni wax dëgg yàlla moom itam ku sonn ci eh, coordonné émission yi fii ci euh, liggéeyukaay bi la euh, Chérif ñi ngi lay gërëm bu baax di gërëm Pierre Da Silva euh, ak Vieux Diouf ñi nga xam ne ñoo nekk ci régie bi di leen jox rendez-vous incha allah ci beneen jotaay bu ci àllande ndey mbokk yi jërë ngeen jëf